assemblée moo war a xoolaat boppam xoolaat ay texam xoolaat rapport bi mu am ak peuple sénégalais bi ak li nit ñi di xaar ci ñoom en vérité mais affaire bi compliqué wu jaara mhm. mais man dama jàpp ne waa Benno ah, ah, ah, li gars di wax ak man li ma jàpp bokkul dama dama gëm ne ñoom xëy na ñoo bëggul Ousmane ko ñëw. Mm. contraire bi ak li coow li bari bari bari. sa waay convoqué <coughs> réintroduire ay dispositions ci texte. est-ce que loolu dafa compliqué. rek waa ji ñëw. mais compliqué wu. ñoom ñoo ëpp majorité mais nañ convoqué. bu dee session extraordinaire la am du noonu lañ koy waxee honorable ñu càmbar la ñu war a càmbar. modifier lu ñu war a modifier delloo ci euh, disposition yi nga xam ne moom mooy tourner autour de la déclaration de politique générale. bu ñu ko defoon tey waa ji ñëw suba. Mm-hmm. mais lan layam layam beeg guddal jëll beeg werante beeg xëccoo bi kay laa xamul lu ko assemblée moo tooñ moo nekkul ci dëgg loolu mooy la vérité te fekk disposition yi ñu dindi ci texte bi delloo wuñ ko ci premier ministre bu bu fi mënti ñëw bu ko neexee du dem assemblée te kenn mënu ci dara kenn mënu ci dara coow lay bari rek dama yaakaar ne gars yi xëy na dañoo bëgg a rek dañoo bëgg wax nii pour exister waat xam nga génnaat euh, nekkaat au devant de la scène mais en vérité ñoom xam nañ li war a def mm-hmm. au lieu de s'occuper de de, de la des dispositions ñu dindi ci règlement intérieur bi mais lan la ñu constaté Benno Bokk Yaakaar dañu def focus ci bureau bi pour que bureau bi réuniru dàq d'abord le débat d'orientation budgétaire bi waroon am te loolu sax gis naa ci euh, ayib dafa bind ci texte boo xamante ne même communiqué bi ñu def sax ne nañ c'est un parce que bureau bi bu waree dajee mais ñi ci bokk ñëpp dañoo war a daje mais disposition boo xamante ne wala décision boo xamante ne nee nañu waxtaane nañ ko en bureau alors que ñi ko waroon fekkee fekkee ko en tout cas Ayib Dick moom il n'avait pas été informé de cette réunion là du bureau ci président groupe parlementaire waaw mm-hmm. loolu mën demee parce que ñoom ñoom ñoo am majorité di def lu leen neex mais li ñu war a def c'est très simple bu ñu bëggee Ousmane Sonko ñëw def sa déclaration de politique générale nañu delloo ci règlement intérieur bi disposition yi ñu ci dindi yi tax bu mbañ a ñëw bu ñu ko defoon tey mu ñëw suba wax na ko waxaat ko te beneen bi mooy man dama jàpp ne gis nga dama déglu démb sur le doyen Doudou Wade sur la RTS avec notre euh, confrère Omar Gningue ñu koy nuyu di ko féliciter au passage mais mu wax ay affaires yu gor yu doy waar nee na moom xam na ci ay député yoo xamante ne mais ñoom ñoo falsifié le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Mm, dina war a yóbbu ci yoon. mais ñooñu dañ leen a war a jàpp. Mm-hmm. dañ leen war a arrêter parce que faux et usage de faux lañu def. mais mais mais ñooñu bu ñu leen di arrêté tam seen seen njiit li fi dindi woon poste premier ministre mais ñoom aussi est-ce qu'ils ont tort le fait que premier ministre amatul ci Sénégal soose ah, waaw que dindi premier ministre ba hmm. par force kon premier ministre bi dootul nekkati ci lu jëm ci wàllum bànqaasu réew mi insi appareil institution réew mi hmm. faxas nga ka hmm. lépp lu mu laal ci constitution ci règlement intérieur kër gu mënti nekk day tëb waa léegi kooku nga xam ne moom moo faxas moom moo moo fa xas premier ministre man. mais lu jig njàgg koo koy njàgg. <laughs> moo soo xeli xew. gis nga la Sall Macky Sall en voulant supprimer le poste de premier ministre Macky voulait régler un problème interne au sein de l'APR. d'accord. dem dindi lu lu lu amee solo ni premier ministre lan la doon taafantaloo parce que jamono yooyu moom moo nekk moom mooy assurer la présidence de de de l'Union africaine mais yéey yaay xam nga nangam nangam bi mu koy indiwaat. bi mu koy indiwaat loolu la wax ne non léegi comme damay dem Union africaine il faut ñu amaat premier ministre mais en vérité bi mu koy dindi. booba les grosses pointures yi bokk ci partem ñi ngi doon xëccoo ku ne naan maay doon premier ministre mu ne waa léegi comme nii léegi léegi léegi je le poste loolu waxu ko sénégalais yi mais loolu la bëggoon régler un problème interne. li mu waxoon sénégalais yi mooy fast track affaire wax ne voilà affaire yi mais loolu yëpp. loolu yëpp bëgg affaire di jaar ci moom. loolu la mbubboo woon non non di bu doon daa bëgg lu gaaw rek ba mu faloo la koy def léegi dem nañ ba koy indiwaat bañ ko bañ koy dindi dañoo dem assemblée voté la ñu war a def voté dindi la ñu war a dindi mais bu ñuy delloo si post bi la logique voudrait que mais bépp disposition bu ñu dindi woon mais ñu dugalaat ko. vraiment mais defuñu ko. automatiquement. ay député ay ay ay faussaires noonu laa ko mën a tudde ay faussaires dem làqatu ci ginnaaw modifier le réglement intérieur mais loolu mooy di coow li yëpp. Mhm. man dama jàpp ne assemblée def xam na li mu war a def mais du ko def parce que dañuy politique bu ñu dajee delloo ci disposition yépp Ousmane Sonko ku saway benn nit képp jàkkaarloo ak ñoom pendant tout ces années xeex xeex xeex ba nekk ci bopp réew mi mais kooku est-ce que ragal na assemblée maanaam taxaw naan Ousmane Sonko dafa ragal a ñëw sax pour man. maanaam ku xamul mooy wax loolu. d'accord mais mais ci euh, euh, message yu Ousmane Sonko bi mu def pour ngir tontu bi Marie Sagna lu mu ci xam la mooy que ni suñu joyante wu règlement intérieur euh, intérieur bi balaa le 15 moom dina def ab assemblée boo xamante ni moom moo koy daal di def ci ci place publique wala feneen foo xamante ni sénégalais yi dinañ fa daal di daje mu wax projet ak li nga xamante ni moom la mbébét ci Sénégal ndax bu boobaa loolee bu ko defee mën nañ ko tuddee déclaration de politique générale bu boobaa du salfaañe lu jëm ci wàllum constitution bi. waaw loolu bu ko mën na ko def mais su boobaa comme ni nga wax dootul doo du ko tuddee déclaration de politique générale. parce que nag déclaration de politique générale nag dafa nekk ci ay textes. Mm-hmm. te textes yi dafa am ñu ko tënkee te dafa am bu buñ nee foofa lañ koy defee. c'est boo ko defee feneen am nga droit def ko ah. Mm-hmm. mais mënoo ko tuddee déclaration de politique générale ay la yéwén. et man dama jàpp ne loolu sax erreur la en fait. Mm-hmm. parce que jurisprudence man je préfère mu bañ ko def. parce que moom moo na ci dëgg déjà je préfère mu bañ ko def toog déglu assemblée ñoom bu ñu bëggee mu ñëw comme li ma la wax léegi walaay xam nañ li ñuy def pour waa ji ñëw. te weesuwul mu tas ko weesuwul. bu amee majorité def weesuwul. réintroduire ci disposition yi mu ñëw wa illah président de la république tas assemblée nationale. parce que amul benn délai bu ko ñu dem ci élection. Mm-hmm. tëggat tëggaat yeneen député yu bees. Mm-hmm. mais quant bàyyi fi assemblée di def déclaration de politique générale ci feneen. loolu dama jàpp ne man sama sama gis-gis njuumte la très sincèrement. parce que day indi jurisprudence suba bu ñu nekkee dans la même situation de premier ministre bu ñëw bu ko neex ne noo man damay dem bërëb sàngam def déclaration. de politique parce que defoon na ko am na droit def nag rencontre boo xamante ne dafay convier tout le monde. la jeunesse comme ni mu def euh, grand théâtre bërki démb mhm. convoquer les le le les parlementaire ñi euh, euh, les députés les partenaires borom xam-xam les universitaires comme ni mu ko waxee ci texte la jeunesse loolu nag am na droit def ko quelque part bu ko neexee mu dem stade par exemple def ak def fa benn rencontre bu rëy décliner vraiment sa vision mais nag mënut a tudd déclaration de politique générale parce que déclaration de politique générale moom dafa am lieu le lieu nag c'est à l'Assemblée nationale. d'accord voilà. Mm, Amy Cissé. Mm-hmm, euh, li nga xamante ni nemmeeku nañu kon ci samedi bi ci assemblée nationale mu mel ni euh, voilà débat d'orientation budgétaire bi ñu fa bëggoon a amal mu ceewul antu gis nañ député wu Benno yi ak euh, président assemblée nationale Amadou Mame Diop la mu ci daal di xamle ban gis-gis nga ci am. Mm-hmm. gis-gis bi ma ci am rek mooy ñi nga xamante ne ñoo di assemblée nationale wala sax moo di député yi nekk ci assemblée nationale dañu war a defaraat seen toogaay bu baax a baax. Mm-hmm. parce que ñoom ils représentent le peuple. fi nga xamante ne peuple sénégalais ba mënuñ fa yegg ñoom ñi nga xamante ne ñoo di député ñoo leen fa mën a yeggale donc bu fekkante ne dañuy gis ay irrégularités yi nga xamante ne ñoom dañ ciy dund wala ay irrégularités yoo xam te ne à fois dañ ciy persister xel dootul dal ci diggante peuple sénégalais bi ak ñi nga xamante ne ñoo di leen di représenté ñuy non député yi cela veut dire que ñu nekkul en règle. ñu nekkul en ñu nekkul en règle ñoo tax may wax. Ah, parce que parce que da ngay wax bennoo du question dictature de dara. mais débat la aussi. voilà fan la ngeen may invité. simil ko sa veste. waaw ah, balaa moo njëkk ma siwal sama veste bi li ma def buggaan ci kanam bu bi laa lay def de boo waxee ne député dañoo war a xoolaat seen bopp am na député yoo xam ne bu ñu fa duggee ba léegi dañuy xeex <laughs> taxaw seen taxawaay ci boppam la ñu war a seetaat. parce que mooy mooy ñi nga xamante ne. taxawuñ taxaw ba ñu war a taxawee ak askan wi. ñi def la faux. waaw li def la faux parce que am na ci loo xamante ne falsification la euh, maître Doudou Wade jox na ci explication bu am am solo bañ ko suñu yenn naataango yu ko pour man dama ne maître Doudou Mm-hmm. war nañ ko euh, def benn defal benn école boo xamante ne dafay tàggat li nga xamante ne moo di ci mbirum assemblée nationale ndax am na ñu bëri ñoo xamante ne sama genre gi notion bi nga xamante ne am nañ ko ci euh, mbir moomu moom moo tax parce que gis nga édition bi nga xamante ne indi na ko édition bu bees bi ak édition bu màgget bi mooy instant bi nga xamante ne supprimer nañ poste premier ministre donc ci la am na ay règles yoo xamante ne ci mbir moomu la àndaloon te delloowuñ ko ca moo tax ñoom ñi nga xamante ne ñoo di euh, waa benn bokk yaakaar mën naa ne temps bi moo leen rattrapé li ma waxoon rek am na ci ay mbir yoo xamante ne kenn di ko politiquer rawatina lu mel ni loi loi dafa nekk ay mbir yoo xamante ne ñëpp ci war a tënk bu fekkente ne politicien bu ñëw wala euh, gouvernement bu ñëw bu fekkente ne da nga gis ne loi bi arrangé wu ma wala bi arrangé wu ma ma falsifié ko après ma xool nu ma koy dabuwaat dabuwaat boobu ñoom moo leen dem ba loolu dal leen tey parce que lu toll ni assemblée nationale ñu fay tëgg li nga xamante ne moo di ay projet ay projet yoo xamante ne ci askan bi lay ñëwaat ñu gis ne euh, assemblée nationale boobu nekkul en règle pour ans ñoo falsifié woon yooyu maître Doudou Wade wax na ko keroog dañ leen a war a euh, yóbbu ci yoon parce que nul n'est au-dessus de la loi mm-hmm. mënuñ concevoir ci fa nga xamante ne ci lañ fa la ñuy voté ay projets yoo xamante ne ay milliards yoo xamante ne euh, ci poosu askan bi lay jóge wala ci gafaka état gi lay jóge ñu gis ne ñooñu nekkuñ en règle wala dañuy jël ay euh, loi yoo xamante ne di ko salfaañe te kenn defu ko nañ ko waxte dee ñu dut gouvernement bi nga xamante ne ko fi dindee nga xamante ne wala delloowuñ ay articles yi nga xamante ne moo accompagné woon poste premier ministre boobu kon ki nga xamante ne mooy Ousmane Sonko il n'est pas obligé de venir parce que déclaration de politique générale ci constitution bi la bokk mais ñoom ñi nga xamante ne ñoo ko fi supprimer woon ba nga xamante ne supprimer nañ ko amatul moom premier ministre amatul délai bi nga xamante ne tënk na ko. Hmm. naam sax loi 2002 bi euh, euh, mayoon na ko loolu mais ñoom bu ñu ko supprimer la ñu tëbal lépp donc moo bu defee nga ne Ousmane dafa taxaw ne damay def déclaration politique générale ci fi nga xamante euh, di ci place publique pour man man aw ma aw ma yaakaar ne mbir moom dina ko def parce que yow mënoo di xeex li nga xamante ne moo di jub jubbanti ba pare di def loolu pour man du du nekk mbir moo xamante ne cohérence lay

benno également gis nañ ne li nga xamante ne mooy def nañ ko muy la nga xamante ne moo di euh, débat d'orientation budgétaire ba nga xam ne mu mujj mujjul antu ndax euh, nee nañ bureau ba moo ko daal di annulé te Ayib Daffé wax na ko moom nga ne moo di président groupe parlementaire bi expliqué na ko parce que nee na bu fekkente ne dañ ne bureau bi moo ko wax te moom mi nga xam ne sax moo di président groupe yëgu ko dafay nekk ay mbir yoo xamante ne dafay doy waar parce que bu fekkente ne ñoom ñoo nekk majorité rek ba ne bépp loi boo xam ne ñoo la moo xam mu arrangé askan wi wala arrangé askan wi ngi nekk ci opposition bi dañuy def le tout euh, pour lépp loo xamante rek ñi la indi nañ ko ñu daal di koy recalé pour man loolu jaarul parce que bu fekkante nañu defaraat seen toogaay bu baax a baax parce que askan wi ñoo leen fa toogal askan wi moo leen fa toogal parce que kenn ku ci nekk ci ñoom balaa ngay nekk député danga dem waxtaan ak ñoo di askan wi mm-hmm. ñu wóolu la jox la sa baat dala yokk dee suñu voix ki nga xamante ne mu yow yaay baatam kooku fi mën a jote jotewu fa yow booy taxaw taxawaayu nit kooku nga war a taxawee mais waroo ñëw taxaw ci assemblée ne du projet de loi bu fi indi ma voté ko que ça soit mu baax que ça soit mu bon que ça soit mu arrangé ñi nga xamante ne ñoo ma fi teg ou loolu sama yoon nekk ci je pense que loolu dafay nekk ay mbir yoo xamante ne c'est très dangereux de la part ci ñi nga xamante ne ñoo di député yi nga xamante ne askan wi moo leen fa teg euh, bu loolu weesoo également ñi nga xamante ne ñoo bokk benn bennoo bokk yaakaar gis nga conférence de presse bi nga xamante ne def nañ ko nee ñu dañuy voté ab projet boo ab ab loi boo xamante ne du ñu mayeti ki nga xamante ne moo di président de la république pouvoir tas assemblée bi donc ñoom xam nañu à tout moment gouvernement bi mun a tas assemblée bi parce que loolu du seen arrangement parce que ñoom bu fekk jamono jii ñoo nekk majorité bu dee projet de loi ñëw na ñoom ñu nekk majorité ñu bëgg a kale mbir moomu kale ko mu jàll ñoom seen avantage lay doon même bu fekkente ne ñu ngi def loo xamante ne politique politicienne la te jamono ji politique politicienne askan bi ci boppam. ñoo doyal sëkk. bu ñuy def nañuy def loo xamante ne pour askan wi la askan wi dañu ciy gis seen bopp. mais mhm. nañuy bañ a def yoo xamante ne rek dañ koy def pour kale ki nga xamante ne moo nekk gouvernement en place wala def li nga xamante ne moo dimbali yooyu pour sabotage parce que jamono ji war nañu dépasser foo xamante ne da ngay kale sa moromu politicien au profit nga di ko yàqal wala nga di ko euh, tëggal ndëgg sërëx. Mhm. parce que jamono ji pour man fu ñu toll mooy. képp koo xamante ne sénégalais nga nga ne askan bi moo la ñor wala nga ne Sénégal moo la ñor da war a jàpp pousse pour affaire jëm kanam ndax bu baaxee comme ni ma koy faral di waxee nekkul Ousmane Sonko moo ci gis boppam nekkul Bassirou Diomaye Faye nga da jamono ji yéen a ngi teewlu mën ngeen continuer ngeen aimer partager live bi su ko defee ñu jotagul notification mën ko daal di jot régi euh, Cheikh Sarr bu envoyé na leen lien bi mën ngeen ko partager pour que ñi nga xamante ñoo nekk ci live bi instant euh, professeur mu mel ni ci assemblée nationale la ñuy waxtaanee la fa xew ci week-end bi débat d'orientation budgétaire bi nga xamante ni mujjewul en tout gis nañu nag député yu Yewwi ak yu euh, xamante ni mooy yu Benno yi lañ ci daal di xamle euh, ñoom daal yu Benno yi jàpp nañ ne kaddu premier ministre Ousmane Sonko ginnaaw ba muy tontu Guy Marius Sagna daal buñ ko dégloo ba ba ba ca biir gis nañ ni considéré wul assemblée nationale moo waral du ni mel duñu ko waxtaanee ban gis-gis nga ci la xewoon. pense que soxna jaara comme euh, ni ko ñëpp waxee euh, question bi fi muy tourné wu mooy déclaration politique générale du premier ministre man nag dama yaakaar ni député Benno Bokk Yaakaar yi li ñu def c'est profiter de l'occasion mm-hmm. pour créer beneen statut pour créer beneen identité boo xam ne ñoom bëgg nañ ko jox seen bopp mooy que xam nañ ni peut-être si le premier ministre day ñëw euh, assemblée nationale pour def déclaration de politique générale ce serait benn acte boo xam ne day nekk acte bon nu ma ko mën a tuddee loo xam ne day salfaañe yoon d'accord donc su dee ñoom ñëw nañu basé wu ci lan ci benn lettre bi nga xam ne le premier ministre daf ko bind mm-hmm. boo xam ne sa dérange looloo waral ñoom ñu ne débat d'orientation bi waroon am le samedi duñ ko amal eh, dama yaakaar ni dañoo profiter ci beneen occasion pour créer waat peut-être benn suspense de leur part mm-hmm. mais dama yaakaar ni suspense boobu suñ koy créer ci seen bopp ils sont en même temps dans une dynamique boo xam ne ñu ngi déstabiliser seen bopp lan moo tax ma ni ñu ngi déstabiliser seen bopp un jour honorable dafa ni fii euh, assemblée nationale bi ko tas ma ni ko man dàquma tas mais dama jàpp ni tey jii ni ak nguur gu bees gi assemblée nationale bi kat waroon na mën a restructurer wu. Mm-hmm. les députés nekk des députés républicains mu ne ma am na ñoo xam ne du ñu mës a nekk ay républicains bu ñu taxawee assemblée nationale dañuy xaar premier ministre ñëw ñenn ñi di bàqu ne xolal la ma ko def xolal question ba ma ko posé ma ne ko ah bu dee ci loolu de kon nañ ko tas tey jii nag euh, euh, euh, caractère républicain boobu noonu ñu doon xaar. ci ay député euh, je pense que dañoo nekk di gis le contraire cest di dire am na ñoo xam ne li ñu naan jikkooy borom pax am na ñoo xam ne nañu mel euh, du bëgg-bëgg wala du bëgg avancement réew moom moo koy dindi et wane nañ ko ci la fee ñu bañ a tenir euh, loolu noonu ñuy wax débat d'orientation budgétaire léegi nag qu'en est-il cette déclaration de politique générale je pense que képp ki nga xam ne yow tu es pour mm-hmm. la la bonne conduite de la loi bëgg nga loi bi ñu tegee ko ci ni mu gënee bëgg doxalee ci ni mu gënee tu ne seras pour le premier ministre def déclaration de politique général parce que déclaration de politique général man jàpp naa ni du farata du farata mais tradition institutionnelle la la ñuy wax mais yow munoo def benn tradition institutionnelle di ko def de manière boo xam ne yow da ngay salfaañe loi di ko def de manière boo xam ne dangay ngay désobéir à loi parce que loolu noonu day nekkaat benn euh, argument pour ñenn ñi nga xam ne dañ lay déstabiliser déstabiliser la leneen tamit euh, li nga xam ne yaa ngi koy relance sànq ba tey soxna jaara mooy que euh, le premier ministre nee na su ma ko deful assemblée mën naa ko def feneen. Mhm. Euh, loolu tamit mën na nekk beneen jalgati yoon man dama yaakaar ni tey jii ni su ñu ñëwee ci déclaration politique générale man d'après moo humble avis dafa am ñaari déclaration de politique générale. Mhm. une déclaration de politique générale directe et une déclaration de politique générale indirecte la ñuy mën a tuddee nii déclaration de politique générale directe mooy cette politique générale bi nga xam ni premier ministre bu koy def dafay dem ci assemblée nationale teg fa débat moom ak député ñu jàkkaar loo ñu xam lan lay proposer askan wi mais y a une autre déclaration de politique générale mooy déclaration de politique générale indirecte mooy lan nga jaay le peuple sénégalais bañ na la ñun wóolu nañ la lan nga jaay le politique sén euh, le peuple sénégalais bañ na la ñun doy nga ñu ba ñu jox la suñu réew ak yow politique boobu noonu ngan nga ngay commencer adopter mm-hmm. man je pense que déclaration de politique générale bi euh, def nañ ko ñu ngi koy doxal parce que tey jii nii bu demaatoon assemblée dina revenir ci lima ma yaakaar sur certains point yi nga xam ne ñoom jot nañ koo doxal parce que tey ji nii en trois mois gis nañ nguur gi ay jéego yi nga xam ne dox na ko gis nañ euh, rencontre yi nga xam ne def na ko ak yenn euh, structures yi gis nañ jéego yi nga xam ne mu ngi koy dox ci dund bi gis nañ jéego yi nga xam ne mu ngi koy dox ci mbay mi gis nañ jéego yi nga xam ne mu ngi koy dox ci transport bi ainsi de suite ainsi de de suite que ça pour fair une politique pour déclarer sa politique générale euh, envers le peuple sénégalais parce que en réalité peuple bi nga koy wax parce que peuple bi ils sont représentés par qui par les députés mm-hmm. léegi nag je pense que am na yoo xam ne man comme ni ma koy waxee à chaque fois rek mérité wul débat mais danañ ci wax peut-être pour alerter tey jii ni députés yi man yaakaar naa ni war nañ am beneen taxawaay taxawaay d'après lequel boo xam ne ñoom ils doivent savoir et de manière rigoureuse exacte et remarquable ñoom askan wi lañ fi nekkal tey jii nag askan wi moo gagné moo fi teg président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye le premier ministre li ko ñëpp wax peut laa koy wax et que moom ki reste dans sa position et de manière ferme mooy que lan mooy que tant que les de l'Assemblée nationale ne sont pas réécrits et d'une manière mm, Euh, boo xam ne dañuy euh, obéir au principe des lois bu mu dem defi déclaration de politique générale parce que bu ko defee day wàcc yoon te bu wàccee yoon encore une fois day joxaat ñenn ñi argument pour ñu mën koo déstabiliser soxna Diarra. d'accord honorable boo am loo ci sànni ñu dem ci beneen ponk bi. <laughs> Euh, affaire assemblée hmm. man man ba Amadou Mame Diop di ñëw fekk na ñibbi naa. yow da nga teel a ñibbi bi ma la bi ma wooyee. xeex sa adresse bi dafa bon. Ah, waaw géejawaay ubbi wuñ ko fa woon. baax baaxul wax na ko nee na xeex rek ngay def keneen ki wax na ko ki ñu fa fekkoon damay fàtte tur bi. am na ku ñu fekk que Cheikh Thioro Mbacke nee na ana honorable moom xeex assemblée rek la nekk. <laughs> loolu tamit nekk loolu tamit nag honorable loolu nu mu demee noonu. non c'est que toog. xam nga man man man mënuma politique. te moom ne yow gisoo commentaire yi. buy xeex buy xeex caméra yi du ko jël de day koj gaa yi ci ruq bi. non non man dama lay bàyyi ba nga wiiri na léegi naa ci ruq yi yow loo doon wax sànq. mais xam nga taxaw foofu di def la giri yi caméra yi wane la ñu ne waay diw gis nga déew jaru ko ba pare sooy yow da ngay toog <coughs> dégg nit di wax loo xamante ne nii mais dalay leer ne soosey. kii lii muy wax nii gëmu ci dara peut-être nag li ma nekkul politicien wala ma nekk taskatu xabaar loolu moom moo tax man damay ñëw même réunion bureau sañ Cheikh Thioro wala bureau biram Souleye man damay ñëw wax sama xalaat. Mm-hmm. soo paree ñëpp dajale ñu ne groupe bi lii la wax ñu ne ok d'accord ñan ñooy porte parole yi na wax Aïssa Touré na wax ñun ñoom ñu toog léegi lu groupe bi wax ñëpp la engagé ñu ne waaw d'accord loolu moom mooy dëgg mais soo yi da toog dégg ab député Benno Bokk Yaakaar yéeg ci kaw. mais di wax loo xamante ni yow soose mais da nga naan yow ban Sénégal lañ nekk un taux de croissance à deux chiffres réew mi fi mu nekk nii nit ñi yow Macky boo demee koo ñuy bàyyi réew mi mel na noo xamante ni fi mu nekk nii ci yokkute. Mm-hmm. man ne waa ñii seen taux de croissance bi ñuy wax ni nit ñi yokk nañ genn xeetu yokk koo xam koo ci wax mu ne la Ahmed arrièreal dix ans ci ginnaaw bi ngay doog a ñëw Zik FM ak léegi est-ce que benn la da amoon oto da amoon lii ñoom yooyu yooyu lañ def. yooyu luxe lañ ko def xam nga ab baat doon la boo xam ne nii salaire da laa dab. maanaam yooyu leen jël paramètre quoi pour déterminer le taux de croissance. le taux de croissance. waaye c'est s'avérer lourdement. vous comprenez. Mm-hmm. xam nga jël koo xam ni yàlla na ma yàlla jéggal bëgguma utiliser yenn mots yi sax nga xëy rek ne ko bon yow yow nangam nga mais soose kooku il faut mu sax ay laaf su suñu waxee ne nag nit ñaa ngi yokk ñu ne la non soose nit ñaa yokk parce que yow léegi da lan mooy oto oto nekkul nekkul luxe. Sénégal luxe lañ ko def. portable du luxe soose passeport diplomatique du luxe mhm. benn outil de travail la boo xam ne yow dañ la ko jox mais assemblée nationale bii moom bi passé bi passé yées xam nga bii pour pourtant gis nga bii nii ñu bëree bëree bëri lu tax ñu jàppaleen nii di leen di leen xas la woon moo woon yi xeex yi bëri mais boo nekkee ak ay nit ñoo xam ne ay tojaaka ngeen tojaangeekat lañ noo noo def ba doo xeex ak ñoom. yow votu président assemblée national ba ci njuuj njaaj la règlement intérieur ba njuuj njaaj la oto yi ni ñu koy defaree njuuj njaaj la budget ba ca boppam njuuj njaaj la président bi Amadou Mame Diop député yi installé wuñ ko ay ay ay ay gendarme ñoo ko fal. maanaam il installé par njuuj njaaj. lépp mais tout tout tout. du du du du du du du du njuuj njaaj ou bien du njuuj njaajisme. ça a été njuuj njaajee waaw <laughs> yow léegi imagine yow yow assemblée nationale ñu ne euh, soo amee doom mineurs yi. jabar yi même bu nekkee ba ñeenti jabar dañuy am passeport diplomatique dugg na fi gën a fi soose am na koo xam ne treize jabar la am. treize jabar honorable. ci fan la fan la. dëgg teel. am na sax ci tànk góor gi. te te treize jabar yooyu am na koo xam ni jabar benn jabaram bi xaw ma ñaar góor lañ. xam nga aadama ci fan biir Adama day taggu naa eh Adama Adama day nekk góor nekk jigéen. Mm-hmm. dëgg loolu dëgg. Mm-hmm. dama lay wax yow Amina ay tur yoo xam ni góor da kay nekk jigéen da kay nekk assemblée nationale am na ko xam ne treize jabar. am ci ñaar yoo xam ne ay góor lañ. dem wuti certificat mariage dem déposer affaire étrangère ñu defal la passeport diplomatique pour sa jabar yi sa treize jabar yi doo ñaari ay ay góor lañ ndekete loolu yow da nga doon jaay passeport yi. ci assemblée nationale bi la ñu gisee ab député boo xamante ni ay mbirum faux billets. fu mujjee. ci yàlla. dañ ko wax France. dama lay laaj ñuy wax naan ci assemblée bi lañ gisee ay foqati micro ak ay yéeg ci kaw taabal assemblée bi waa waa Bennoo yi ku nekk ak ñoom waxuma la yéeg taabal mais da ngaa war di naaw man bu ma amoon laaf nga xam assemblée bi naa fa def loo xamante ne nii damay naaw nii tiim député yi naaw di mbéj ak samay laaf. saf saf a doon. ah Spiderman waaye yow koo ma toog ma jël <laughs> wóor na yàlla mais c'est terrible. te kaay wax la benn affaire bi. Mhm. <laughs> bañ yegg ca ñu bëree bëri ñu ngi toog ci tous ah non euh, tas nañu euh, tas da ba vote secret ba dem mosuñoo d' accord ñu tas ko li ma lay wax nii maa xam li may wax. Ah, parce que ñu ci bëri amuñu métier. waaw non foo jëm. waaye ñi nga xam ne seen nekkub député. Ah. dafa leen a yàqal seenu xëy. sam xëy nga doon am lu tolloog ay 4 millions 5 assemblée bi ñëw nga nga yem ci 1 cinq 500 doo ñaan yàlla lu dul nañ ko fa yemalee nga dellu ca la la nit ñi xam xamee woon nga dem daane doole nee naa la am na fi benn entrepreneur boo xam ne te du député la. Mm-hmm. rapport Cour des comptes yi lañ ko épinglé am na benn paragraphe boo xam ne dañ ko wax ni ko amoo droit nekk député ba pare sa tur yi nekk encore ci turu entreprise bi ngay def ay activités lucratives xaw ma lan ak lan Euh, nu mu tuddati euh, conflit d'intérêt bi. day ñëw yow da nga nekk député ba pare sa entreprise bi di soumissionné foo xamante ni nii yow foofu foofu la ñuy dogale lu la may marché bi. bokk ci déggoo ma di maire amoo salaire pécule la Ablaye Wade da ko def salaire moo tax ñu ne leen yéen bu leen neexee ngeen dem liggéeyi maire professeur maire mason maire tailleur maire journaliste maire léegi maire député. moo tax ñi nga xam ne dañoo am liggéey nekk assemblée dañoo waroon woote AG. mais même bu dee affaire dafa war a dem ba janvier nañ nañ leen soppi réglement intérieur bi fii. wuy ma wuy ma nañ ko soppi nii ñu ne léegi président may nañ la prérogative nga tas ko nii nii nii daar daar bu dee am nga mooy yoo organiser élection loolu moom mooy dëgg mais ay député nekk fii ne ñoom non seulement d'accord ñu ñu tas ko janvier mais dañ bëgg duñ ko tas ba deux mille ba ba deux mille vingt sept na mandat bi dem ba jeex parce que disposition yooyu nekk ci règlement intérieur bi dañ ko bëgg a soppi voté ko seen biir booy benn ñaar su ko président de la république promulgué wul conseil constitutionnel va demander au président de l' assemblée nationale de le promulguer bëgg a ngooy ci nguur. d' accord soo seen nit ñi il faut ñu dem wuti liggéey wàññi politique bi tuuti mais yow bu dee politique rek moom moo lay dundal mbir mi nii rek lay demee de bu transhumé njuuj njaaj faux et usage de faux parce que da naan lii bu ma ci génnee man lan laay defi